mbégte nañu am tey dellu si waat ci beneen numéro waaye numéro boo xam ne bu spécial lay doon ndax waxtaan la wu ànd ak xew-xew woo xamante ni du saayir waaye lépp baatin la ñu bëgg koo waxtaan ak kan ki nga xam ne moo leen ci war a dalal muy Serigne Souleymane Diouf di ndaw waaye doon itam ku suñu borom baaxee am lu mu def ci moom ci xam-xam ginnaaw bi nga xamante ni itam lu na ak li nga xamante ne mooy li fi mag ñi bawoon nekk ci boobaat tey itam di ci yëngu macha allah rabbi kon li ñuy def rek mooy dañu daal di ànd ak moom ci biir jotaay bi mu néew mu bëri ci kàddu ngeen dégg kàddoom ñu xam ki ñuy waxal ku mu doon li mu mënee ak li nga xamante ni itam nekku ci tamit danañ ko xam insha allah rabi ci kàttanu yàlla kon sëñ Souleymane ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye itam di la dalalaat bu baax baax ci biir plateau bi insha allah alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin mm-hmm. wasalaatu wasalaamu ala asrafil xalqi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima wa radiyallahu an saaxibil xadni war kabni mawlaaya ahmad abna muhammad tijaani amma baxdu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ taal ñu leen di nuyu bu baax di la dalal tamit yow tamit macha allah di la ñaanal yàlla gudd fan a wér gi yaram gën ñoo gisa loolu wax dëgg yàlla lii tamit ñu koy doole sant yàlla di nuyu mboolem koo xam ne maanaam moom mu ni bàyyi xel mm-hmm. ñu leen di jox seen guumu xool tamit di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ taala jërëjëf Serigne Souleymane ci nuyoo bu am solo bu macha allah rabbi waaye yal na yàlla sax borom toftal ci dégg akub topp akub jëriñu ci dara jëy sangub sang yi. amiin amiin bi nga xamante ni ci la ñu nekk macha allah rabbi. amiin amiin amiin may door ak yow Serigne Souleymane mooy ku xam Serigne Souleymane Diouf xam ku ci mën a seet. Mhm. xamoon Serigne Souleymane. ci mën a seet mhm. seet ci alxuraan di seet ci kurus di seet ci ndox di mhm. seet ci listixaar di fanaanoo mhm. ba kenn ku ci ne am na ci loo xam ne natatleen tuñ ko ci sëñ Souleymane euh, ba seet sax da daan dem ba yàgg ci biir seet mu lay limal ay tur waaye mag ñi daan ñu bëri daan ko ko tere mu ci daan bañ léeg-léeg waaye ba tey du tee léeg seet dina ko yóbbu ci dimension yoo xamante ne moom mhm. day toll ci tolluwaay yoo xam ne day tudd ay tur ndax mhm. sëñ Souleymane ci dimension boobu ba tey ndax sëñ Souleymane romb na dimension boobu ba tey wala fan la ci sëñ mhm. waaw sant yàlla sëriñ Talla ba léegi daal suñu borom dogal ni ne daanaka sax tur yi da ko daan def suñu borom dogal ñu ñu koy wax ñuy dégg ñu koy wax suñu borom dogal yàlla dogal loolu tamit ba léegi tamit ñu ngi koy jéem di ko def psaay Mhm. waaye dama koy tere peesaay du ko wax mhm. na peesaay ndik da nga ko tudda tur mu tiit wala benn mu dem accusé koo xam ne maam da nga kaa tudda tur ba mu dem si koo xam ne que nangam ak nangam te sëñ nangam moo ma ko def mhm. moo tax lu bëri danga nga koy hésité di ko def mais dina la wax loo xam ne la wóot ba wóot bi su baaxu yàlla incha allahu rabbi sa xol da siy sedd te tamit su boobaa lu lay wax tamit di nga ko gis si mbaaxu yàlla ndax seen moom daanaka la lépp la ni siy gis mhm. da na ni lépp mbaaxu yàlla la mhm. du jaag ni maanaam boo cinéma dafa mën a seet la déedéet mhm. loolu mbaaxum suñu borom bi la incha allah luñ si wax rek mi noonu rek jàppan dafa dayanteel waaw suñu borom waaye du jaag ni Souleymane ni maanaam day tudd tur yooyu yooyu ne li ñu nekkal li ñuy ànd mi raw xaan yi ñuy àndal mm-hmm. ñi nga xam moom mm-hmm. ne di liggéeyanteen ñooñ ñoo ñuy day leen di wax rat loolu day jàpp jàppani loolu mooy am mm-hmm. sa mbaaxam yàlla macha allah mu doon lu am solo loo xamante ni da nga ko delloowaat ci suñu borom subhanahu wa taala ndax fi mu toll nii moom fi waaye di tiitaroo rek moom moom nga moom nga ko moom nga war a tiitaroo dëgg la moom la gannaaw wax dëgg yàlla euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñu teel ci àdduna waaye suñu Souleymane ma gis nit ñi dafa ci bëri ñoo xam ne mën nañu woote seetlu mën nañu woote def lu li si xaar mais après sarax yi nga xamante ni yéen yéen a ngi leen koy digal mhm. du ma gis ñu gën ko def farata te defe naa ni tey ji ki dem ba seetlu xam say njàkk rek say coonaan lépp lépp mhm. ay sarax daal di cay feeñ defe naa ni mhm. sarax ya mooy bunt bi nga xamante ni la war a mën a soxla yooyu wala mu wàññil la xeetu nattu yooyu noonu gis na sëriñ daala sarax sarax dafa baax si nit même soo seetluwul na xam sa sarax dëgg te di ko def te dafa baax ndax sarax day fànk dina fenk euh, loo xam ne tey la wër ba wër naa wala tey def ab soog. Mm-hmm. na sarax ab benn mbuus soow rek soog boobu échec. Mm-hmm. waaye ne jékki-jékki maanaam boo ñu wax la loo xam ne defoo ko sarax yoo xam ne defoo ko. Mm-hmm. muy ni la ay coow sa wàllu liggéeyukaay mi sa wàllu ndéegu sëy. yooyu yëpp day am. moo tax sarax ku ko mënta digal. boo ko mënee def ko soo ko mënutee jiim kaa def. Mhm. te bañ a topp maanaam boog dina ànd la ba tey ji doo def sarax. Mhm. ndax tey ji mën na laa diggal sarax na ne waaw léegi da nga àndal. mi àndandoo bi ne ànd mi rab bi ne ànd di lay yàqal mhm. léegi mu lay forcé sa loo xam ne defoo ko ëllëgee mën na laa indil ay gàllankoor mais si gis naa koo xam ne te ni ma kooku moo ma ko wooyee ni ko génnee sarax yi ma ma ko génne mu woo ma mu ma kat ah la ma tax ne waxuma génnee sarax ma ma génnee sarax yi wax digg yàlla ah oto bi sa boppam dafa dem ba foofu benn camion moom noonu moom noonu fël mhm. moom noonu laal ba si ma ne dafa déggante waaw seen borom ndax maa toog la sama xel nekk si ma am na ma doon xool fan la feeñ fii mhm. moo tax mën na génne sax man ba ma génnee ñett mbuus sow yooyu da wax dëgg yàlla sant naa si yàlla mhm. ndax génnee naa ko te loolu bu ma génnee soow ma dong la si la loolu fànk na xam ne sarax dara du sarax sarax dafa baax si lépp dafa baax si lépp na moo lay fànkal lu bëri loo xam day ñëw ay gàllankoor. Mm-hmm. gàllankoor yooyu mu lay dalal sarax dafay baax sëriñ taala ndax sarax moom ku ko dul defit mm-hmm. yaakaar naa ne day woon naa toogaat toogaat sa biir néeg xoolaat sa bopp yu yaay kan. ndax sarax moom boo dëgg yaa dafa baax sarax waxaan. surtout li nga dëkkal loo xam ne chaque jour da lay wan. Mm-hmm. day saraxee ndax mu lay dimbali. incha allah jërëjëf Serigne Souleymane Diouf ci leral boobu ci sarax yi nga xamante ni wax dëgg yàlla mi ngi dimbali doomu aadama waaye bokk na ci ba tey ma gis sëñ Souleymane mboolem liggéey bëri waat na wala li ëpp tey ci bu lay liggéeyal mhm. dama gis sëñ Souleymane di faral di jëfandikoo naat ba tax na sax fi ne mbubb mi nga sol defe naa ñu ngi naan mbubb mi mooy tànku naat mhm. ban secret moo nekk ci naat ak loo xam ci naat ak lan nga dégg ci naat ba jël sa liggéey bi base bi yëpp nga def ko ci naat waaw naat nag wax dëgg sa liggéey liggéey liy liggéey naat dafay baax ndax naat dafa baax si koo xam day faj rab mm-hmm. naat dafa baax si nit koo xam tey jii dañuy xëccoo wàll place mm-hmm. naat baax na si benn côté yow ci jëmmi boppam mm-hmm. nay tabax kër na bëgg mu egg si mbaaxu yàlla am na loo xam su ma ko defee si naat incha allahu rabbi balaa leen gi déwén moom dama woo ma kër gi egg na waaye nit day ñëw si boppam eggale sa kër loolu nag mbaaxu yàlla la ndax naat dafa nekk euh, loo xam ni ah secret la si biir secret dafa bari ay secret ndax lépp suñ ko doon sulli tey ji si débat bi ah secret lu jeex naat moom dafa bari secret sëñ Talla ndax fi ni nii fi yaa na jël beeg ba rek waaye tànk ba waaye am na soo xa soo soo reyee naat bi am na benn am na benn secret bu nekk si biir bi. Mm-hmm. benn sirlo rek. Mm-hmm. soo ko jëlee am loo xam soo ko boolee ay baat si suratu Luqmaan. Mm-hmm. am na loo xam ne su ma ko fa defee incha allahu rabbi ma amul loo loo xam ne incha allah nañ koy liggéey te du sotti. sa mbaaxu yàlla lay doon nag. waaye lépp la di génn ak Alxuraan waaw. mun doon lu am solo naat tur bi rek dafa dafa dafa barkeel defe naa ni ba tax na kon barke ba ci nekk xam naa ni bokk na ci nga moo tax nga topp ko mhm. euh, moom ba tey sëñ man danaan jékki-jékki fi mu ne ne la dafa dama am lu ma feeñu ndax maa ngi fàttaliku bi la fi si sang bi Serigne Babacar si radiyallahu taala am yàlla ñu yàlla taas ci barkeel bi feeñoo mhm. waaye daf mel ni fan yi feeñuwaat na la ba boolewaat la ak keneen ku la feeñuwaat waaw wax dëgg fa yàlla dama koy sante yàlla jullee ko naa Muhammad sallallahu alayhi wa ndax nee ndikk moom la mën a am rek sellal mhm. du mën na sell naa ah ndax mhm. ndikki cell day mel melokaan boo xam ne soo pour na jege seen borom ah mhm. mën na yomb si yow mais gis na am na loo xam ne seen yaa ngi koy jëfandikoo ay kilifa de la feeñu ku mel ni Cheikh Ibrahima Fall Baaba Muridiina wal Muridaati wax dëgg fa yàlla toog na di douze jours dama feeñu fukki fan ak ñaar. bés bu ne mu feeñu la. te chaque jour mu feeñu ma àll may jox bokkut. ban waxtu la wax dëgg na yàlla deux heures du matin jëm fajar. jëm fajar waaw. te bu ci ne bu ñëwee am na lu benn bu ne àll may jox te lu ma jox démb démb démb démb damaa xëy suba am ko. <laughs> yam la joxoon jot amoo la ma am la ma jëkkoon a jox na mu kaa sànni ndax man li tax ma ne la ma kaa teg à côté. Mm-hmm. lépp laa mën a wax de waaye la lépp gis naa ko. Mm-hmm. mu jéggaate ma mu ne man lii ma la jox nii émission bi tax du lu ma la jox nii mm-hmm. bu neexee yàlla yonent bi ah, jëmm jii di ñëw. te mel ni lu sol ba euh, am max na si kawam nga xam di teggee ko. kii ma lay jox jël ko soo ko jëlee incha allah di si gis sa bopp. maanaam kon su ma la déggee bu baax a baax maam Serap Fall da laa may. soxna soxna waaw. ci ci bi mu la feeñoo. waaw te lam la daan jox yëpp daan nga ko gis daan nga ko jël waaye bii moom bi nga ci joxe moom daal dafa tënk lépp. tënk na lépp. mais loolu nu mu demee mosoon ñu ci Serigne Souleymane. waaw déedéet loolu moo tax man la yàlla nga wala lan nga doon liggéey ba. déedéet di question turu yàlla gis na Serigne Talla nit. Hmm. na yor taqullaaha mi ragal yàlla la ngay def. ragal yàlla la te ne ngay def. te mm-hmm. xam ne yàlla mi fépp du jeex. Mm-hmm. te du fi jug mm-hmm. nit ki euh, gis na jaamu yàlla lu mu la mën a lu mu la mayut du la ko xaj. dëggit lu mu la mayut du la ko xaj ndax nit ki neexul na toog bi saa ne diw moomu def nangam te maa kooku joxu la daan ëllëgee ni nga sa borom. waaye ni nga ko am moom. alaakuleel billaahi ndax kenn ku ne waa laysa lil insaani illaa ma saxaa. Mhm. waa na sax soo fa yow sama yujzaa jazaa alafaa lu waaye jëf la jàpp ne ëllëg ma xiyaama nañ ko nañ ko jëf. mais yow en tant que taalibe mhm. mhm. ba nga mën a gëm wax ji la wax wala jëf ji mu dund ak nii. yow noo dundee loolu. wax dëgg neex yàlla su ma la waxee ba sa biir. sin diidi dama ko doon jàng fan yii yëpp. sin diidi. <laughs> la ma ko doon jàng. moo tax ni bëri bëri bu ma kaa wax sa kaw mais dama ko doon jàng fan dafa am benn kilifa gu ma ko jox. mu ne ma dee ko jëfandikoo mu ko jëf commencé jëfandikoo nag wax dëgg neex yàlla am loo xam ne lu bëri bëri dama ko see gis ba fii diwaan bi ma dëkk nii. dama kaa woon mu ne ma dee tuxu ba ma xëyee suba la ma la ma woon euh, la maa génn wax borom borom kër gi nu ma kër néeg ne war ma ne ko waa mu ne ma am naa si ko mel boo xam ne tëj naa ko fa dama kaa jël ko. te ma séedee kër Talla. maanaam kon yow moom bi mu ñëwee ay tegtalam moom dara faussé wuti. dara amul lenn kon dugal la amul lenn Serigne Serigne Talla amul lenn loo xam ne maa si récité di ko rëcc. wax. man de wax dëgg fa neex yàlla taalibe Serigne Babacar si la maam Seydi Hadj Maay lay bëgge. dégg na wax jàmm bu baax. nag moom man su ma jëmi boppam la ma wax dong laa mën a dégg maam Cheikh a Fall moom ma feeñ ni ma nangam ak nangam la ma wax la jarul wax. da kenn ku ne nañuy turist waaye man lu may wax turist wu ma ko ñun ñëpp ay njaboot la ñun ñëpp ay njabootam na mm-hmm. te sëriñ Tuubaa mooy mu di di leexi kon génnul génnuñu kon baatu jaamu yàlla nan ba noppi nag ñu nekkaat ci weeru safar weeru safar gi ñu nekk sax yàlla su tey bii bu jeex na loolu la sant yàlla la te yàlla yàlla def tawféex ak mm-hmm. sutura ba yàlla may ñu màggal ak jàmm ndax sëñ bi dafa ne kaay la ñu neen sant la ma yàlla mm-hmm. kaay sant la ma yàlla la ku koy wax nag kon xam kon bàyyiwul kenn. Mm-hmm. te Sëriñ Tuubaa dafa njaboote. kon nag ñun naqan moo ay jullit nañ. Mm-hmm. lépp lañ si def sa ah nañ ko def ngir wajji laay taalaa. Mm-hmm. te ñu bàyyi ngistal bi man loolu lay ñaan. nañu bàyyi riyaa ay ngistal. ngistal bi nañ ko baax. ndax benn tax man nan bàyyi ngistal ne bàyyi nit ki day jékki-jékki def ba pare toog di ko waxtaanee. wala ñu ne kaa nañ maa def nangam ak nangam ak nañ ko baax. diine gi ni diine fawukaay. tarixa bi di tarixa fabukaay ne sëñ Tuubaa bi muy wax dafa liggéeyal yàlla ba génn àdduna baayam dafa liggéeyal yàlla ba génn àdduna pap yaayam tamit kazalika kon kenn ku ne dañoo liggéeyal yàlla kon li ñuy def nga na ko def ngir wajji laay taalaa ndax man fan yi nu may dégg yëpp ñu koy wax mm-hmm. wax dëgg yàlla defatuñ te yàlla tax day def ngir wax ni am bës amul njëriñ. Mm-hmm. na nga ko def te yàlla tax. Mm-hmm. waaw man daal loolu laay con loolu laay loolu laay laay sànni message. macha allah ndikk daal ni ñuy def. Mm-hmm. na nga ko def ngir wax ji laa taala màggal gi. loo koy def te yàlla tax yàlla moom xam na. moom xam na bu boom fay moom muy fay. moo gën keneen di fay. dégg na wax ji. kon nag yal na nu yàlla dimbali. si bàkke yonent bi sëriñ Tall loolu laa wax dëgg yàlla sëñ bi noonu la ma fay te lu ma jox rek sant naa léegi mu mel ni tamit actualité dafay dañuy ànd ak actualité tuuti ñu mhm. ngi ci màggal gi waaye laata ñuy dugg si waat foofu sax mhm. dégg nañ bërki démb euh, mhm. sa benn naataangoo sëriñ comme yow takk nga dundee événement boobu nga xam ne sa mbokk sa ndaw la def dund na ko ah. ak tey ji yow itam day mel ni yow topp nga ci moom ndax fi toll nii moom it yow ñaareel fi toll nii ah. gis na Serigne loolu dafa daanaka te bëgguma sax mu jóg waaye léegi na Serigne Tall euh, sëy mm. yàllaa ko moom. Mm-hmm. sëy mm-hmm. yàllaa moom. Mm-hmm. sumbulu yàllaa dogal day sëyal ah, euh, sëñ bi kii sëñ Abdoulaye Diop xaas. yal yàlla barkeel sëy ba dégg naa la si nit ñi ñu ñoom sëy bi du yàgg nañu bàyyi yàq sëyu jàmbur sëy ba man tawfeex laa si gis ak gudd fan wér gi yaram mm-hmm. incha allahu rabbi ñoo waxoon ni nen du yàgg mm-hmm. dina leen bett na ñoom ñëpp yaa wax lii maa ko wax nan bàyyi maanaam boog sëy bi do ah, sëy déedéet sëy sëy sëy sëy sëy si boppam mm-hmm. moo nekk loo xam ni ah du benn fan di ñaari fan di ñetti fan benn sëy neexul. ku ni sëy neex na dangaa dugg gudd. commencement bi neex la waaye naqar gaa si kalam. koo xam day du daa dugg si sëy. Mm-hmm. ah damagul fenn. Mm-hmm. ah ñu ni sëy ba du dem. loolu daa metti nañ ma xati dëgg te yàlla tax mm-hmm. nit ñi nan ñu bàyyi nan ñu bàyyi tappale bi. wax dëgg ne yàlla Abdoulaye Diop xaalis. dafa am yëg-yëg tëral jabaram sa soxna na yaa comme moom lu la neex na naka tëralee waaw moom kay moom mu laa tëralee loo xam ne kenn soon sonn waaye loolu bu fa bëgg nit ñi gis ñi nga xam ne tëral na soxnaam mhm. te yàlla na ko fi yàlla may ndam te jigéen waa kay jigéen loolu defoon su moom milliard mhm. yàllaa ko wax sa biir alxuraan mhm. ndik jigéen soo defoon su milliard amu fayam moom na moom dama ne dama ne ñaar xaw ma ko xamaana ko waaye en tout cas daal moom ñoom ñaar seen diggante. Mm-hmm. yàlla fi yàlla def njaboot yi barkeer. su mul na moom dëgg yàlla ku baax la. Mm-hmm. ndax am na loo xam xam naa ko sa moom. Mm-hmm. kon nag maanaam ba du mu ëlbatiku wax loo xam maanaam ba la. waaye xam naa ne daal lu ma wóor ba wóor sëy bii. yar na yàlla barkeer man awma si lenn loo xam ne mën naa see wax si Abdoulaye Diop Khass. mënuma say wax leen si. sëmulu bàccëri yow gannaaw moom bi mu yow nga daal di ñëw tam sant yàlla loolu moom sant yàlla la loolu mbirum suñu borom bi la yàlla moo ni moom zaalika fadlullah yutime yi sa ngëneel la da koy def si yàllaa mm-hmm. koy def si doomu aadama ngëneel bu nu am na sunu borom bi la mm-hmm. waaw du caagi rek Souleymane nangam ba nangam déedéet mbirum sunu borom bi la màggal gi noo ko waajee ak lan moo ciy sa sas yow gannaaw tey ji màggal gi daal lu ma si wax mooy mm. màggal gi lu ma si wax mooy ne ñëpp kenn ku ne ah nan toog yàng xasida wàccee kaamin mhm. ñaanal xalifa bi yàlla na fi yàgg te ànd wér yàlla na fi yàlla yàgg te ànd wér ba lépp lu muy mission ba muy dox mhm. yàlla eggaleeg ko sagoom mhm. si bàkki Seydina Muhammad ndax lu mu def ab ab lu mu def si tuwaawan gii rek wan la maanaam tarixa yi réerewuñu ñun ñun ñi nga xam jur gi ñooy fël ko te xamuñ fu ñuy teg seen tànk waaye mañ xamante ne seeni biir ñoom kon nag wax dëgg ne yàlla lu ma si waxeet chaque jour màggal gi daal màggal sëñ Tuubaa la dafa ni kaay leen sant leen ma yàlla su ko neexoon mu ni kaay leen sant leen sama njaboot waaye dafa kaay sant ma yàlla kon wéetu si wéetu si de waaw da daf tagg Seydina ma ba génn àdduna te daanaka lu ma génnee yëpp si ay tiiram yëpp yëpp yëpp yëpp si génnoon te jii réew mi du baax ah mais lu tax mu jël lépp suux génne yi bàyyi yi yëpp ñu jël euh, téere sëñ Bàmba kese di ko jàngale nañ xam sëñ Bàmba bi bind na jëloon téeram kese di ko jàngale hmm. dina xam ne sëñ Tuubaa bind na waaye téere yi si bëri ñukkiwuñ ko maanaam hmm. téere soo ko bëggee jàng da ngay dem gëstu noo war a boole tiijaan ab mburit taalibe sëñ Tuubaa hmm. ak taalibe sëñ Alaaji Malick taalibe Serigne Touba di waxtaane xilaas zahab taalibe yi Seexul Xaaj Maalik di ko waxtaane Serigne eh, waxtaane Serigne Touba si nga xam ne ñëpp mag ñi dañu bëgg muy soog am waaye tant que loolu amul daañu gaa yi changé guñu. incha allah Serigne Souleymane Diouf. ci mhm. waxtaan bu am solo bi waaye ci leeral gi waaye kam pas-pas bi nga xamante ni tam dégg ngeen ko mu daal di koy jottali waale macha allah rabbi kaddu yu mujj lu muy doon ci jotaay bi tey bi nga xamante ni seetlu nañu ko ak yow tey. yal na nu yàlla dafa jàmm. ñaan nañu yàlla dafa jàmm mën naa la may wax rek ñaan na yàlla dafa jàmm ndax jàmm may lépp ndax nit moom loo am te amoo jàmm tamit amoo njariñ kon nag yal na yàlla dafa jàmm du wax ne ñëpp yal nañu tàppe xol yi doon benn ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñii na xam ne moos maanaam ñoo dugg si néegu sëy yàlla yàlla di gërëm seen sëy si mulu bàcciri du ma koy conseil mu bu déglu waxi kenn su may déglu mhm. bu mu déglu waxi kenn lépp lu muy def na tàgg borom këram lépp lu muy wax na waxal borom këram te may déglu kenn su xoolee sa magam su mhm. xoolee sa magam mhm. ak yaayam dina sëy waa xel a waana alhamdulilah rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sëriñ Souleymane